الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حياة الفلاح حياة الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله سبحانك وله الحمد وله الملك. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi sunu xutba tey mooy yowmu ashura wasira bayna alxaq wal batil mooy bésab tam xarit te ñu toll ci mu nekk tey bés la boo xam ne liñ ci war a jàngat fàttali ko ci mooy diggante la woon boo xam ne dëgg ak caaxaan ñoo ci doon xëccoo ndeke bisab tamxarit du bisu aada du bis boo xam ne dafa war a nekk bisu lekk ak naan nekkul bisub caaxaan nekkul bisub fo waaye tamxarit bayna sira alxaq walbatil dafa nekk bés boo xam ne bésub xëccoo la woon diggante dëgg ak fen diggante pas-pas al aqida ak bokkaale diggante ab yonent ak ab buur waaye diggante nit ku yàlla jox dëgg mu war a ñëw tasaare dëgg bi ay niti caaxaan ñëw taxaw ci kanamam ne ko dëgg bi du fi jàll loolu mooy bésub asura loolu lañ ci jàng loolu lañ ci war a fàttaliku waaye waruñu ko def bésub aada sànq dafa am ku ma ànd génnal moo ngi ci jàkk ji toog ci otoom ñu romb benn machine wal leket yaa nga rang daanaka mën nga ne deux mètres pour lan pour cere wax naa bu yàgg-yàgg ne ñun Sénégal sunu diine yépp diine yi am lekk moom di fi ci am lekk dañ koy fonk lool sunu jaamu yàlla yi jaamu yàlla goo xam ne am na ci lekk boobu moom ku mu neex ku mu naqari laa budde dañ koy def ndeke bisub asura mu nekk assira bayna alhaq wal batil wa bayna awliyaau rahman wa awliyaau shaytan bisu xëccoo la woon diggante dëgg ak neen diggante gaa yi yàlla yi ak gaa yi seytaane yi te noonu lay continuer ba àddina jeex diggante dëgg ak fen dañuy xëccoo rek waaye leen rek mooy nekk gàcce bis bu dëgg yambaree comme ni mu yambaree tey caaxaan ak ay mbokkam ak seytaane danañ dem ba ci digg pénc mi daal di fay samp seen kàddu samp fa seen ndënd ba ku leen seen dafa ne ñoom ñoo nekk ci dëgg loolu mooy li ruslu tey ni dëgg réeree tey ni dëgg sànkoo nga xam ne jaamu yàlla yépp ay folklore lañ ci def caaxaan la amul benn jaamu yàlla booy defati ba nga yëg xikma bi ak bànneex bi wala falsafa bi déedéet amatul julli moo gën a màgg ci sunuy jaamu daanaka léegi formalité la rek kabar jàng ruko siggi sujjóot asalaamu aleykum amul de lenn lenn lenn lu ci doomu aadama yi di jëlee pourtant ñun ñëpp ni mu leere ci ñun ñu jàng yàllaay ki wax ne inna salata tanha anil fahsha wal munkar xoolal julli ni mu réye ni yàlla wax ne julli nii la war a mel léegi loolu tey ku jàng aaya boobu nga ñëw natt ko ak sunu julli yi lan ngay trouver mooy formalité la ñuy def taxaw ci kanamu yàlla rek kabar ruko siggi sujjóot daal di sëlmal jeex na mbokk yi ndeke yawmu asura dafa nekk bis boo xam ne su jotee gaa yi yàlla yi dañoo war a xam ne dëgg saa yu taxawee rek caaxaan daan léeg-léeg ñu wax diggante Muusa ak Firawn yonente alayhi salaatu wasalaam dafa jóge makka dem médine bi mu ñëwee xam ngeen médine yahud yi fa lañ dëkkoon mu ñëw fekk yahud yi di woor mu ne leen lu xew ñu ne ko bisub tey bii ñun chaque année bu amee bu ñëwaatee ñun dañ ciy woor pour sant yàlla yonent bi ne leen lu xewoon ba ngeen ci sant yàlla ñu ne ci la yàlla labaloon sunu noon boobu tudd firawna yàlla daal ñuy rëccal ñun peuple banu israil ñun ak sunu yonent Moussa alayhi salaam Moussa daal di koy woor mu sant ñu ñu woor ngir sant yàlla yonent alayhi salaatu salaam daal leen di tontu ne leen ana awla bi Moussa man maa leen gën a yey ci Moussa yonent bi daal di koy woor yonent bi di ko woor ba benn année mu ne leen xam nga yonent yàlla daf ko yónni pour mu wuute ak yahud yi loolu jàng ngeen ko ci julli jublu masjidil aqsa yonent fan la doon jublu masjidul aqsa la doon julli di jublu yahud yi di wax ne kii gëmul sunu diine ba pare muy jublu sunu qibla mbir mi metti yonent bi ba yàlla wàcce ci quran naan qad naraaka taqalluba wajhaka fi sama falan nuwalliyannaka qiblatan tardaha yow de maa ngi lay gis yow sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngay aj sa xar kanam di xool asamaan pour yàlla indil la kàddu gu jógee ci moom gu lay orienté nga bàyyi fii ngay jublu yàlla ne ko falan nu walliyannaka qiblatan tardaha dinaa la indil xibla goo xam ne moom nga gërëm mooy ban fa walli wajhaka satara al masjid al haram moom moom moom wax jooju moom yonent ñun ban lañ moom wa haysu ma kuntum fa wallu wujuhakum satra fu ngeen mën a nekkati yéen jullit yi ci àdduna na ngeen jublu néeg boobu tudd kaaba ak fu ngeen mën a nekk fexe leen ngeen jublu wet woowu ñi nekk ci biir kaaba gi ñooñu la ñuy wax fal force bu ñuy julli ci biir kaaba gi la ñuy jublu ñooñu nekk ci biir kaaba gi ñi nekk ci màkka ci jàkka ji lañ leen orienté fal force ci jumaa ji ëmb kaaba gi ci la ñuy jublu amaa ñun ñun satra ci wetam fii lañ yaakaar na fa la nekk rek acca jubal leen foofu xar kanam yi mbokk yi yonente alayhi salaatu wasalaam boobu mooy premier mu daal di wuuteeg yahud yi bàyyi na seen xibla am na xibla boppam ñaareel ñëw na bisu asura mu fekk ñu koy woor moom mu ne leen man dinaa woor deux jours le premier ak ba ca tegu démb ak tey wala tey ak suba pour lan pour ma wuuteeg ñoom yahud yi ñaareel fekk na leen ñuy feetu samedi ñoom yahud yi nasaraan yi di feetu dimanche mu ñëw indi ajjuma fekk na leen bu ñuy dugg ci seen temple yi wala église yi ay cloche la ñuy yor ay cloche di fëgg keng keng wala ñu yor tuur mooy béjjén boobu di ko ëf moom mu daal di ñëw indi nodd xamal jullit ñi bu jaamu yàlla jotee da ngeen a war a nodd mu ñëw fekk leen ñuy foo samedi ak dimanche moom mu ne woor leen ko ndax ngeen wuuteeg ñoom mu ñëw fekk bu ñuy julli dañuy simmi seen dàll mu ne leen bu ngeen di julli sol leen dàll mu ñëw fekk bu ñuy sujjoot dañuy teg seeni lex mu ne yéen bu ngeen di sujjoot teg leen seen jë teg leen seen juróom-ñaari cër lii lépp yonente alayhi salaatu wasalaam mu ngi ñuy wuuteloo ak yahud yi mu ñëw fekk jigéen bu gisee baax ñoom dañ koy jël yóbbu ko ci ginnaaw kër gi duñu lekkandoo ak moom duñu wax ak moom ndax dañu ne sobe la am moom mu ñëw ne isna'u kullu shay illa al jima def leen lépp ba mu des sëy kenn warul gis soxna si sax ci biir kër gi xam ne am na lu nekk ci moom kenn waru koo xam def leen lépp ba mu des sëy fanaanoo leen ak ñoom bokk leen lal lekkandoo leen naan leen wax leen ak ñoom yahudi bi ñu gisee loolu ñu ne waaw waa ji lan moo ko dal ba moom saa yu déggee ñun ñuy def dara rek moom mu daal di def leneen moom lan moo ko dal yonent ba mu déggee loolu daf leen tontu ne leen yàlla def maa yónni pour ma wuuteeg yéen mu ñëw fekk gaa yi ci sikkim yi ak moustache yi nasaraan yi dañuy wat sikkim bi ba mu set ñu bàyyi faas bi mu ci biti mu ne jungu-jungaaral ñu wat sikkim bi ba mu set ñu bàyyi naanu bi fii moustache bi ci kaw yahudi moom dañuy bàyyi ñaar yëpp ñu wàcc dañuy bàyyi naanu bi mu wàcc muy moustache bi ñu bàyyi sikkim bi mu wàcc yonent bi nee na wuute leen ak ñoom yéen wàññi leen naanu yi ngeen bàyyi sikkim bi lenn saa yi nga dégg ku ne waaye yéen lan moo tax yéen yéen yéen ngeen di wut ay sikkim lan moo leen ci neex ngeen di yer ay sikkim waaw saa yu la nit waxatee lu tax nga bàyyi fi sikkim ne ko ndigal laa ci jot ndigal bu bàyyeekoo ci sayyiduna muhammad moom moo wax ne waafu liha bàyyil leen ma fi sikkim yi waafu alliha bàyyi leen sikkim yi su ngeen di wàññi mu ne wàññi leen mustaas yi ngeen bàyyi sikkim yi ndax lan mu ne ngeen wuuteeg yahud yi waaye ngeen wuuteeg nasaraan yi mu ñëw fekk leen ñuy lekke càmmoñ càmmoñ gauche mu ne yéen lekke leen ndeyjoor bu leen mel ne seytaan ndax seytaane càmmoñ lay lekke la taakulu bi shimal wala tashrabu bi simaal fa inna shaytaan yaakul wa yashrab bi simaali kon diine islaam a ngoog foo ko fekk dafa war a wuuteeg ay caaxaan ndax diiney dëgg la ci yàlla tabaraka wa taala la bàyyeekoo moo tax bisu asura di ñu jàngal xëccoo diggante dëgg ak caaxaan yonent bi ne leen ana awla bi Moussa maa leen gën a yey ci Moussa Moussa lan moo xewoon digganteem ak kan la woon ak buur boobu tudd Firawun nga xam ne kàccooreem ak dooleem ak mën-mën ak kattanam yóbboon na ko ba mu dajale banu Israil yépp ci benn pakk ñépp toog yàlla moo ko wax fa hashara fanaada mu dajale ñépp ci benn pak mooy fa hashara ñépp la dajale ba ñépp teew kenn absentewul fanaada mu taxaw jël micro ci kaw daan ne ana rabbukumul aala maa yàlla ju mag ji yamu ci loolu mu ne leen ma alimtu lakum min ilahin xayri xamaluma leen sax benn yàlla bu ñu war a jaamu budul man ndeysaan gaa yi nee nañ keroog ba iblis déggee firawna ne ana rabbukumul aala iblis dafa jóge ba ci kaw daanu ci suuf daan ne hee man nag ndeke ku baax laa taalibe mi ne ko iblis lu xew mu ne ndeke am na ku ma gën a kàccoore am na ku ma gën a saay-saay gars yi ne ko kan la mu ne firawna ñu ne ko lu mu wax mu ne nee na moom mooy yàlla ju kawe ji man nag man waxuma woon maay yàlla yàlla daf ma ne woon su jootal ma bañ waaye maay yàlla moom man waxuma ko woon ndeke léeg-léeg nit dina wax wax boo xam ne iblis sax moo lay tane ndax maa yàlla baat boobu yàlla moo ko moom yàlla ba mu woowee Moussa ci turu Siina Moussa nekkoon ci lëndëm réer ànd ak njabootam ànd ak soxnaam ba mu réer xamatul fu mu jëm mu daal di séen benn tàkk-tàkk mu ne ñi mu àndaloon imkusu inni raaytu naaran toog leen fii resté leen fii gis naa safara bàyyi leen ma dem fa laalli ajidu ala naari hudan amaana ma fekk fa ku ma orienté woon ma yoon wi wala ma daal di fay jël benn tàkk-tàkk matt ma indil leen ma defal leen ngeen jaaru borom bi nee na ba mu doxe doxee ba jege safara si yàlla daal di koy woo ne ko inni ana allah maay yàlla kon baat boobu yàlla rek moo ko moom maay yàlla yàlla rek moo ko moom moo tax ñi réer ñi nekk fii tey naan ñun ay yàlla lañ wala man yàlla laa wala kaay ma wan la yàlla dañoo jàngul koo dégg mu naan man yàlla laa ñaanal ko xam ne jaar na yoonu seytaane jaar na yoonu firawna firawna moo ne woon mooy yàlla waaw firawna bi mu waxee ne mooy yàlla tabaraka wa taala yamul ci loolu mu dajale njabarkat yi mu leen damaa bëgg ngeen xoolal ma sama nguur gi gars yi daal di xool ne ko am na benn liir bu war a juddu moo la war a folli ku góor moo la war a juddu moo war a juddu du nekk copt waaye ci banu Israil lay bokk waaye day moom moo lay daaneel ci sa nguur mu daal di jël décret mu ne jigéen bu ëmbati nañ ko garde su amee doom nañ ko xool bu fekkee góor la nañ ko rey loolu mooy natt bi gën a rëy bi yàlla teg ci waa banu Israil yuzabbihuna abnaahum wa yastahyuna nisaahum ñuy rey góor ñi di bàyyi jigéen ñi yàlla mu ne wa fi zalika balaun min rabbikum azim loolu nekk natt bu rëy bu rëy bu màgg bu bàyyi ko ci yàlla waaye lu ñu war a jàng ci bisu asura mooy xalaati doomu aadama wala pexe doomu aadama munta téye dëggu yàlla doomu aadama dafa am ay pexeem firawna pexe na lan mooy pexe firawna mooy góor gu juddu rey leen ko bu doon kenn ci ñun moo planifié loolu moo ko programmé mu ne mbeddu sàngam wala nangam bi ku ko def nañ ko rey waa ji xam loolu kon moom danaan li bu ko kenn def firawna nee na góor gu juddu rey leen ko yàlla yor programme bi bu doon yàlla du yàlla nu muy def day aj programme bi mu ne comme Firawna gis na ko liir bu judd nekk góor dañ koy rey ah kon Moussa mi bu demee dañ koy rey kon na affaire bi arrêté ba beneen yoon waaye kooku du yàlla yàlla dana Firawna liir bi dana juddu suy juddu doo ko fekke te dinaa ko yóbbu ba sa kër te yaa koy yar ba mu màgg mu daaneel yaay Moussa ëmb gaa yi di ko garde suba bu nekk garde corps yi ñëw taxaw gis nañ ko dafa ëmb muy am doom mu am doom ba pare rek ñu fëgg bunt bi mu daal di tiit xamul nu muy def mu jël doom ji dugal ko ci cin bi te cin bi mu ngi ci biir matt bi mu ngi takk ñu ne ko yow da ngaa am doom parce que yaa ngi ni da nga doon matu ana doom ji mu ne leen suul naa ko ñu ne ko da nga kaa nëbbu ci kër gi ñu wër kër gi yëpp gisuñu doom ji fekk doom ji mu ngi ci biir cin bi cin te cin baa ngi bax ba gaa yi dem parce que cin buy bax kenn du ubbi cin bi naan dañuy xool foofu liir bi ñu demee mu tiit xelam daal di ñëwaat moom fan la dugal doom ji bi muy dugal sax xamu ko mu daal di koy gis mu nekk ci biir ndox mi di di sànni ay tànk ak ay loxo mu daal di koy génnee allahu akbar looloo tax bi ko yàlla ne dugal ko ci kees gi nga dugal ko ci dex gi inna la radduhu ilayka tegu ci baat parce que xam na ne ki ko sàmmoon ci biir cin bi su ko waxee loolu dina ko sàmm ci biir géej gi yaayu Moussa comme gis na ne yàlla sëfe na Moussa fii tey ci biir cin bi kon insha allah bu ko yàlla waxee def ko ci kees nga laxas ko ay laltaayam ba mu dëgër nga daa dem ba ca dex ga foofu tudd niil nga teg ko fa nga bàyyi sa yoon nekku ci nag yaayu Moussa daal di def loolu daan ne magam bu jigéen demal nga topp ko waaye bul jege da ngay nekk distance bu sori waaye ngay yërndu ci diggante bant yeeg ndox mi ngay xool liir bi fu mu jëm lan mooy programme firawna mooy liir bu judd nañ ko rey firawna ngi rey gudd bis bu nekk ñu rey ay góor yu dul jeex bés bu nekk ñu rey kii nag judd na li xel nangu mooy comme firawna day rey ay liir kon kay liir bi dañ ko waroon jël jàllale ko géej gi yóbbu ko beneen dëkk nëbbu ko foofu loolu la xel nangu wala wala ñu jël ko dugal ko ci montagne yi wala ñu jël ko dénkaane ji ko feneen loolu la xel nangu waaye yàlla dane ndaw si teg ko ci ndox mi nga génn ci sa yoon nekku ci ndaw si daal di indi liir bi teg ko ci biir te kaw ndox mi yàlla ne vague yi yóbbul leen ma ko ci firawna mi rayaati vague yi di puus kees gi kees gi dem ba garde corps bu firawna yi boobu jabaram moo ngi sangu ci ndox mi garde corps yi seen kees gi ñu daal di plongé ñu dem indi ji kees gi ñu fekk doom la ñu fekk tamit góor la waaye lu doy waar mooy keroog ba jabaru firawna gisee doom ji moog firawna lan la yàlla wax yàlla mu ne wa alqaytu ilayka mahabbatan minni man yàlla maa la làmbee maa la muuree yow Muusa bi nga nekkee liir ku la gis rek daal lay bëgg kenn dootul xalaat rey ku la gis rek bëgg na la mbëggeel gu bàyyeekoo ci yàlla kon yàlla bu bëggee nit nu muy mel allahu akbar yàlla na nu yàlla bëgg yàlla bu bëggee nit texe na àdduna texe na àllaaxira yàlla bu bëggee nit nit kooku sëfe na yàlla bu bëggee nit nit kooku texe na mbokk yi misaal bu gàtt fii tey ku fi benn milliardaire bëgg rek looy def benn milliardaire taxaw fi mu ne bëgg naa diw lu xew kooku dañ naan ndeysaan kooku affaire am baax na waaw bu fekkee président de la république moo bëgg waa jooju génn ci télé bi daal ne man diw mi sama xarit la bëgg naa ko lu ngeen xalaat ah léegi nag yéegal leen ko ku gën a fort président yóbbu leen ko bàyyi leen léegi jaam yi dem leen ci borom bi tabaraka wa taala mu bëgg nit Abu Zarr dafa toog ba càgg rek ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam rek wala malaaka yi ñoo ñëw di wax ak yonent bi bay dem rek jibril mu ne yonent bi bu Aba Zarr ñëwee nga nuyul ma ko yonent bi daal di téyewaat loxo jibril mu ne ko ataarifu Aba Zarr allahu akbar xoola jibril xam Aba Zarr du du yonent de du yonent de du malaayika de du jinne benn benn mbindeef la ci mbindeef yàlla yi doomu aadama la du yonent du du nabi du mursal waaye jibril xam na ko mu ne bu aba zar ñëwee nga nuyul ma ko yonent bi ne ko ataarifu aba zar mu ne ko wa kayfa la aarifu wa jamiu malaika man fi sama yaarifuna lu tax duma ko xam nekkul man rek maa ko xam de mboolem malaaka yi ci kaw asamaan xam nañu abasar allahu akbar kooku lu ngeen xam ci moom kon yàlla xam na ko wala xamu ko yàlla bu bëggee nit day woo jibril mu ne ko bëgg naa nit bëgg ko jibril ne bëgg naa ko mu ne wooteel malaaka yépp nañ ko bëgg jibril taxaw ci horizon wu asamaan yi yuuxu ba malaaka yépp ne teg mu ne yàlla nee na bëgg na diw na ngeen ko bëgg gis nga waa jooju day am qubul fil ard su waxee kàddu yàlla la su doxee kàddu yàlla la lu mu def yàlla la koy defal lu mu def yàlla moo ko def yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di jaaxle mu ne jibril waaw lan la abu zar def ba ngeen xam ko lan mu ne li kasarati qiraatihi qul huwa allahu ahad mu ne moom fu mu nekk rek day jàng xul wa allahu ahad yonent bi ne bàyyi leen ba abazar di ñëw abazar di ñëw rek yonent bi nag abazar kaay yow abu zar yow dégg naa yow foo toog rek xul wa allahu ngay jàng même booy julli sax xul wa allahu kese ngay jàng lu ko waral mu ne ko mooy carte d'identité yàlla te man dama bëgg yàlla moo tax moom dong lay jàng ndax saar bi yàlla kese moo ci wax boppam kon mbokki jullit yi asura xëccoo la diggante dëgg ak fen diggante dëgg ak neen diggante xaritu yàlla yi awliyaau rahman wa awliyaau sheytaan yàlla tabaraka wa taala jël Muusa daal di koy yóbbu biir kër firawna firawna bi mu gisee xale bi mu ne ah kii mbaadu xale boobu ñu doon wax jabar ji ne ko déedéet kii qurrat ayunin lii kii sama reeni xol la comme maag yow amuñu doom nañ ko jàpp mu nekk suñu doom amaana dinañu jëriñ waaye léegi mu ne day tester liir bi ndax am na xel wala amul xel boroom xam-xam yi nee nañ dafa dem jëndi tàndarma dafa indi tàndarma ak xalu safara mu daal di koy teg fekk boobu Moussa mi ngi commencé màgg muy xool mu koy testé ndax kii mooy xale bi ñu doon wax la du moom mu ne ko jëlal boroom xam-xam yi nee nañ Moussa keroog tuuti mu jël tàndarma bi yàlla moo yónni Jibril mu fal loxo bi daal di jël safara bi teg ko ci gémmiñ gi moo tax Moussa làmmiñ bi dafa dotomoon ndax lakk bi làmmiñ bi lakkoon moo tax bi ko yàlla di yónni mu ne ko yónni waaleel sama rakk Haaruna ndax moo ma gëte moo ma gën a set làmmiñ jàngeen ba muy ñaan yàlla rabbi israh li sadri wa yassir li amri waqlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli yàlla sama làmmiñ bi mel ne dafa fasu yàlla na nga ko tekki ndax gaa yi bu may wax ak ñoom mu daal di leer ixwatal iman aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wahda wa la na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun ibadallah Moussa noonu la màggee ci kër googu yàlla dénk ko Firawna te Firawna moo ne woon góor gu judd nañ ko rey Moussa judd na yàlla dénk ko ko mu nekk ci kër gi di lekk ceebam di naan ndoxam di jëfandikoo ay alalam ak ay bagaasam ba mu soob yàlla benn bis ay copt xam nga foofu ñaari xeet la woon copt ak israélien copte mooy ñi dëkk Égypte israéliens yi mooy waa Palestine ñoo fa jóge woon daal di ñëw ñëw ànd ak Yusuf Palestine lañ nekkoon ñoom waa banu Israël. Moussa Yusuf moo doon traversé indaale leen keroog ba muy wuy si baayam ba baayam di ko wuy si loolu moo indi israéliens yi biir Égypte mu nekk ñaari xeet comme ñi ñoo fi nekk gouverner ñu def ñee ay jaam. léegi nag ndeke yonent bi war a ñëw ci ñii ñu def ay jaam fa la war a nekk ñaar ñooñu bu ñuy xeex Moussa ñëw àtte Moussa dafa nekkoon borom doole am kattan lan moo leen di won ne Moussa borom doole la woon te njool la woon kattan la am mooy ba mu jógee Madiyan ba mu jëmee Madiyan histoire bi may bugg a wax ba mu amee. fekkee ñaari nit mu fekk ñaar di xeex kenn ki nekk nitam kenn ki nekk copte bokk ci ña mbokk firawna muy àtte mu bëmax kenn ki rek waa ji daal di daanu dee. léegi nag ñu ne ko rey nga nit mu tàmbali dina gudd ba ca suba sa mu ñëwaat ci même place mu fekk ki doon xeex bokk ci moom banu Israël di xeexaat encore waa ji ba mu ko séenee. du yuuxu turam Moussa ñëw jëm ci ñoom rek waa ji daal di tiit dafa ne Moussa ci moom la jëm fekk ka dee woon démb kenn xamul ku ko rey mu daan ne ko ah da nga maa bëgg a rey ni nga reyee waa ji démb kon ñu ne waa ji Moussa ko rey ñu ne waaw ñu ne kon Moussa foog ñu dem waxi ko Firawna ñu dem wax ko Firawna nañ ko indi pour rey ko mu daw loolu moo génne Moussa Égypte mu jëm Madiyan waaye nag ba mu li leen di won ne borom doole la woon ba mu fekkee Madiyan dafa fekk benn teen boo xam ne fukki ponkal ñoo koy tijji ndax xeer bi ñuy teg ci kaw nu mu amee doole. ba mu ñëwee moom Moussa ñaari loxo la jàppee xeer bi teg ko fële ñaari loxo la jàppee xeer bi yëkkati ko xeer boo xam ne fukki ponkal ñoo koy yëkkati. moo tax xale jigéen ñi bi ñu ko gisee ñu dem wax ko seen papa ne ko gis nañ fee benn waa joo xam ne alqawiyul amin papa ji ne leen ah kaay leen ngeen wax ma ñaari sifa yi ngeen wax ci waa ji yéen tey ngeen ko gis ngeen xam ne alqawi yu ko am doole la al amin ku wóor la fu ngeen ko teg xale jigéen ñi ne papa waa ji dañoo gis mu ubbi. teen bi te teen bi fukki ponkal ñoo koy ubbi moom kenn moo ko ubbi dafa laal xeer bi puus ko fële xeer bi bërëngu papa ji ne waaw kon kooku am na doole alxawiyi bi kon dëgg la al amin nag ñu ne ko papa biñ ñu waxee nañ dem wooyu waa ji benn waa ji rootal nañu suñuy xar naan na te waxuñu dara ay tey bu doon jamono fii la benn xale bu góor ak ñaari xale yu jigéen ci biir àll li tax doomu aadama war a sàmm pour yàlla chaque jour dalay nattu di la tester lan moo tax ngeen ne kii al amin te tey ngeen ko gis mu ne bi mu defee loolu ba pare ba nga yónni ñu nii nañ ñëw woo ko pour nga waxtaan ak moom ñun xale yu jigéen ñi biñ nekkee ci kanam sunu sër yi commencé naaw def ñoo wax ne taxaw leen ñu taxaw mu ne ñëw leen sama ginnaaw ngeen bàyyi ma jiitu buñ demee ba fu fu ñu war a jàdd rek sànni leen xeer foofu ma daal di jàdd côté boobu bu leen ma jiitu ndax bu ngeen ma jiitoo may xool seen awra yi seen ginnaaw allahu akbar loolu moo tax ñu ne papa kii al amin ku wóor la ah. ñaar yëpp nekk ci moom al qawi al amin mu daal di fay nekk Shuayb bu may ko jabar jàngi ngeen histoire bi ci lu mu doon sàmm loolu taxu ñoo jóg bi mu fa nekkee nag léegi ba mission bi jot yàlla ne ko nag ñibbil Égypte mu daal di génn ñëw Égypte commencé woote Firawna jour bi mu ko njëkkee recevoir ne ko yow Moussa fii nga nekkoon xale ci sama biir kër gii ma yar la nga def fi li nga fi def fa faalta faalta allati faalta nga def fi li nga fi def nga génn mu ne faaltuha wa ana min ad-dallin ba ma koy def maa ngi ñu réer ñi ñoo nekkoon léegi nag loolu passé na xéewal la gu may gu la yàlla defaloon pour nga defal ma ko waaye tey jii nag yàllaa ma yónni ma ñëw ci yow pour nga war a libérer banu Israël mu ne ko ban yàlla moo moo la yónni. mu ne ko comme Firawna nee na mooy yàlla mu ne ko rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma fan la Firawna nekk du ko ne du yow. parce que bu ko nee du yow histoire am léegi daf koy jàpp rey ko ban borom moo la yónni mu ne rabbu samawaati borom asamaan wa rabbul ardi ak borom suuf wa ma baynahuma ak li ci diggante bi sax ñooñu ñëpp moo leen moom kon dugal na ko. mu ne ko yan kéemtaan la la jox mu daal di sànni yat bi mu nekk jaan mu dugal loxo bi ci poqotaan bi génne mu dem am lumière kenn mënatul xool moo tax chaque jour dañuy wax buur. soo naree baax rek yal na la yàlla may nga am ay dag yu baax yu nekk sa wet entourage bu baax li tax tey ñun suñu buur yi mënuñoo baax parce que ñi leen wër ñoo baaxul ku nekk sa intérêt intérêt kese moo leen fa bàyyi xaa Haamaan bi mu gisee loolu mu ne kii njabarkat la dafa ñëw pour nax leen bokk na ci musiba yi gouvernement yi def saa yoo nee yàlla rek dañ naan suuf si lañ bëgg a nangu état bi lañ bëgg a nangu chaque jour nitu nguur yi loolu mooy seen xalaat soo leen nee yàlla rek loolu lan moo indi terrorisme tey ci kaw suuf lan moo tax ñu jàpp imaam yeeg sëriñ yeeg borom xam-xam yi di tëj lan la soo nee yàlla rek ñu ne kii dafa bëgg a nangu état bi dafa bëgg a foqati suuf si seen loxo loolu la du amul leneen loolu moo nekkoon diggante yonent yi ak buur yi léegi lu ñuy def mu ne comme moom njabarkat la waxal ci biir dëkk bi yëpp njabarkat dinañ ñëw Firawna daal di tas njabarkat yi ñoom ñëpp ñu daal di ñëw tout biñ ñëwee mu dugal leen ci néeg waxtaan ak ñoom njabarkat yi question bi njëkk a wax Firawna mooy buñ ko gañee loo ñuy jox mu ne leen ngeen nekk ñu ma jege ngeen ma def leen ay ministre innakum la min al muqarrabin yéen ñëpp ma def leen ay ministre yéen njabarkat yi jeex na yàlla moo ñuy nettali mu ne fa jama'u kaydahum ñu fexe seeni fexe ñu indi seeni buum ñu ñëw ñu nekk ñeenti xaaj xaaj bii président moo fi toog ak ministre yi xaaj bii député yoo fi toog ak assemblée sénat yi xaaj bi peuple bee fi toog xaaj bi Moussa kese ak rakkam Haarun ñoom ñaar cundum waaw coow li jóg gars yi di yuuxu saay saay si comme tey niñ koy defee fii coow li di jóg gars yi di yuuxu firawna mooy yàlla mu naan leen ana rabbukumul aala ñëpp di dëggal bi yuuxu yi bëree ba bëri firawna jàkkaarloo ak njabarkat yi ne leen waa léegi ba jeex na nag sànni leen li ngeen di sànni yàlla mu ne ñu sànni seeni buum ñu njabar bëtu nit ñi nit ñi di gis buum yi di yëkkatiku mel ne ay jaan yu yu laxasoo firawna kontaan Moussa daal di tiit bi mu gisee loolu mu tiit fa awjasa fi nafsihi xiifatan mu yëg ci intérieur am mu tiit yàlla daal di koy téye ne ko ci man ab yonent du ragal walqi ma fi yaminik sànni li nekk sa loxo droite yat bi la woon mu daal di koy sànni mu nekk benn yeew boo xam ne kenn xamul nu mu toll ci guddaay waaye dijjaay bi kenn mënu ko natt ŋaamu benn ŋaamu gémmiñ gi ci suuf bi mu ko tegee ci suuf la nekk beneen ŋaam bi bi mu ko yëkkatee dafa tiim pojom bi firaaw na toog mu daal di wann li njabarkat yépp indi mu songu tribune bi firaw na daw mu songu nit ñi stade bi nit ñi di pëccëxoo la dee keroog kenn xamul nu mu toll ci ay nit ndax dañoo nappaajante dëggante ñu tiit ñu ne ko teel yat bi mu daal di koy téye teel jaan bi mu téye ko mu daal di koy delloo nu mu meloon rek firaw na njabarkat yi doon xool loolu ñoom xaaruñu sax dara dañoo sujjóot ci kanamu Moussa rek daan ne amanna bi rabbi Moussa wa Haarun ndax xam nañ ne dëgg mooy dëgg bisu tam xarit la woon amanna bi rabbi Moussa wa Haarun ñu këpp ci kanamam rek Firawna mu ne a innahu la kabirukum allazi allamakum sihra kii moom mooy seen kilifa gi leen jàngal njabar mbokk yi xutba bi du mën a jeex ñu dagg ko foofu ba vendredi bi di ñëw incha allah buñ jullee ba pare am na suñu ñaari mbokk jullit yoo xam ne ñun ak ñoom ñoo bokkoon di julli fii ci jàkka ji dañoo feebar kenn ki moom mu ngi fa hôpitalisé sax moo ngi dantek incha allah bu ñu paree bu ñu amee lu ñu leen di dimbali kenn ku nekk ci ñun loo mën a am pour ñu dimbalee ko suñu ñaari mbokk yooyu mbokk yi incha allah ñu jàpp ci allahumma ixfir lana qabla al mawt warhamna inda almaut wala tuazibna bada almaut birahmatika ya arhama arrahimin اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا اله الا الله صلوا